Nous sommes ici, un collectif bu nekk HLM Nous à travers euh, les écrans Nous doon manifester par rapport à ce stade Nous avons ni ñu manifestation mon responsable et nous tojuñu en toute responsabilité génn wax ni stade lañ commune

fas yéene ànd ak ñoom parce que ñun niñ koy faral di defee yitte askan wi mooy sunu seen soxla mooy sunu yitte ñëw nañ déglu nañ leen jox leen aussi sunu baat ni dinañ ci dox seeti ñi nga xam ni ñoo seq mbir mi ñu fexe ensemble nuñ koy régler ndax kat waxtaan ci lay lépp xej kon daal ñëwoon naa tey ànd ak waa sàmm ànd sàmm sunu moomeel fii ci HLM pour ànd dox ci li nga xam ne moo jëblu ci stade bi. te mu mel ni bi ñu doxee itam booboog léegi ñi ñuy dajeel seen yitte seen soxla mooy stade bi bañ a dem ci loxol ñenn waaye des ci HLM nekk yëfi HLM doomi HLM yëpp bokk ko comme ni muy amee ci yeneen gox yi lu fa doon doon stade municipal municipalité bee koy moom ki ko yor tey mën naa nekk ci opposition këlëg ku nekk ci pouvoir yor ko li am solo rek na nekk yëfi askan wi ñoom daal loolooy seen xeex ma jàpp ni lu yenu maanaa la dinañ ci seeti préfet dinañ seet sous préfet seet ci gouverneur seet ci waa Socabek yi nga xam ne ñoo yoroon travaux bi may fàttali nag ne biñ koy tàmbali man fekkee naa ndax boobu président Pape Diop moom moo nekkoon maire de Dakar man as tuut maa nekkoon directeur centre socioculturel bii ci HLM. donc je suis témoin oculaire de cette histoire fas yéene cee jox sànq jàmm pour l'intérêt de la commune des HLM de remercier l'attitude responsable et citoyen de ce collectif donc dans looloo ma taxoon nous que si siège fi ci HLM waxtaan pour faciliter and ak ñom pour dox ci tank jam ba stade ci doomi HLM na dem ASC bi waxtaan ak sous-préfet même bëgg na wa sapeur pompier ñew xolal ñu ak protection civile xol ndax stade bi kat. bu ci xale juddu woon tey ma ngay def BFM wala wala wala seconde seize ans ci ren est-ce que les bâtiments toujours est-ce que est-ce yooyu yëpp defe naa ni boo déggee ñu koy wax dafa am ay jéey yu fi mosoon a am te souvent négligence moo koon andi te nag ñun ñu bëgg ci suñuy dox lépp lu ñu yëg ñu bàyyi ci xel bu ñu demee nag ba lépp ni yemb na am naa yàqin ni ñoom li ñuy xeex mooy stade bi doon stade HLM waa HLM yëpp fu waay mënti bokk gis ci sa bopp su ko defee mu nekk moomeelu HLM te yaakaar naa ni loolu nag ah, xel war na ko mun nangu ndax fi toll fi gérer su euh, responsabilité toll mooy ni lu waay di def rek daf ca war a boole ak ñam ko séqal rawatina nag waa waa HLM yëpp donc ci loolu daal lañ woon vraiment fii pour euh, ànd ci ak euh, association bi collectif bi lay wax sax te ñu bëri ma xam ne xamoon naa leen nag tey door ñëw. kon donc dëkkandoo jàmm ci gën jàmm jooj la ñuy dox suñu digganteeg suñu dëkkandoo dëkkandoo àq la moo tax ñu koy dox pour jàmm dellusiwaat ci HLM stade bi moom ko ñu defar ko ba mu ta gën taaru nag ci stade yëpp su ko defee itam mu nekk une fierté de tout HLM wa loolu daal moo doon suñu ay tànk ñu ñëwoon seet sunu ay mbokk ak sunu ay xarit.